dëkk bu sell bi di Touba Cheikh Ahmadou Bamba mooy ko sanc ci atum 1888 ngir jaamu boromam bi mu fi nekkee ay at yu néew ci la sanc fii nga xam ne moom moo di Daaru Xuddoos di këram gii. fii nag di Daaru Xuddoos bokk ci barab bi Sëriñ Touba yi ndax këram moo ko sanc loolu boppam dëkk fi ginnaaw boo xamante ni nii sanc na barab bee mu tëdd tey di Touba. 1888 ñaari at mu ci barab bi 1890 tudde ko daaru xuddus li rabbil alamina mursilu ahmada di kër goo xamante ne nii ay xalawaatam muy wéetaay gi mu bëgg a wéet di gëm ak fii la koy def kër goo xamante ni dëkkalu fi woon ñenn moom da koo defoon rek ngir boppam ku fi mën a ñëw ci mag ñi mooy dala fee soxla am lu mu la fi def loo soo paree delluwaat ci sa yitte daana fi dugg xalwa moom ci jëmmi boppam ay fan yu takku daana fi duggloo mag ñi itam eh, ay xalawaat mel ni sëñ Daaw Xasan Njaay duggloo na ko fii xalwa di ko seetloo yoon wi wi mu jëm eh, ba xam moom lu ci gis diggam ak borom yooyu yëpp rek dafay wane ni sëñ bi moom tàggat na samp na formé na ay nit ñoo xam ne mara la ne nag seen borom ba suñ ko soxlaa xam fuñ koy jaar loolu nag lu mat a bàyyi xel la ñu gis ni fii ci kër gi juróomi atam yu mujj li ëpp ci ay jataayam fii la ko daan defee fii itam ci kooruk mille trois cent douze muy bay sasin ci laatikaaf bi mu doon def ci jàkk ji ci kanam la koy def ñu naan ko jàkk yi sëñ Mbàkke Madina jàkk ji sëñ Mbàkke màddina da ko yeesalaat waaye jàkk yi sëñ Tuubaa jàkka yi itam kër gi da koo ëmboon kër gi dafa dafa réyoon ba ëmb jàkka ji te bu ñu seetloo sax Sëñ Tuubaa jàkkaam yépp ci biir kër ga lay ne loolu la doon jullee waxtu yu juróom waaye nag bu dee weeru koor moom fukki fan yu mujj yi moom day tëju ci biir jàkka ji mag ñi julli si ñëpp dañuy tollale ci bitti boobu itam wax nañu sëñ daa wax Asan Njaay mooy jiite waaye sëñ bi moom day tollale waaye ci biir la nekk tukkib yoonu géej gi muy l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba fii ci Darou doos la lépp dooree ndax fii ci jàkkam ji nga xam ne moo nekkee ci Darou Khoudoss fi la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fee ñëw woon mu am lu mu sàkku woon waaye yonent bi xamal ne ko la koy may natt yu métti lay doon yoo xam ni ba ca gën a tuuti day faat bakkan ci fukki fan yu mujj yooyu ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo ci jàkk ji ànd ak ahlu badrin sëñ bi ne ayyaanan nag nee na nelawut du gént du leen doon jenner yonent bi ak ahlu badrin ñoo fekk ko ci biir barab boo bii waaye sëñ bi nee na bay na xijaabin raqiq nee na lu mel ni rideau moo dox sama diggante ak ñoom muy bu leer bu transparent boo xam ne da ngay jàkkaarloo ñoom waaye du ngeen mën a joxante loxo ñu ñuy waxante ci wax moo tax mun salli wa alal mukallim loolu koo jàkkaarloo di wax ak moom lay sëñ bi nag bu mu xasee gis yonent bi sallallahu wa sallam ak ahlu badrin mel na ni moom amatul jenn yitte amatul benn xeemanteef lu dul bokk rek ca ñooñee nga xamante ne mooy sahaaba yu dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fu jëm jëmee leen fa te loola nag yonent bi sallallahu wa sallam xamal ko nag moom ñooñe la leen ko may mooy dañoo tuuran deret te duur deret moom jeex na lislaam la ikraha fi diin waaye sëñ bi moom ni loolu rek la bëgg yonent bi dig ko fa dig bu rëy mooy sa ñeent fukki des na ñetti weer te xot bu samaan dee su ko am dee su ko doon te amoo ñeent fukki at danaa la ko mottali def la ko ndax dal xol cofeel gi nga am sa xol ñi nga jamonoon teel amu ci kenn ku la ciy seen waaye lii nga bëgg moom diis na diisaay boo xamante ni nii ku ko mos a laajit ñaari day wàññi ko rek wala mu jëlee ceeb la waage te yéene mu la ko sëñ bi xamal ko ni ko daal roogi moom yoruma ko néewul ci sama loxo waaye bu fekkente ni nii wóor na woon sama roodu ci des daal li ci des sama jom àttan na ko loola yonent bi nangu ko ne kon nag da nga séentu ay ay nattu yu tar yu bare bare yoo xamante ni nii sa noonu jamono lañ lay lañ lay te nattu yee nag duma la ci dimbale dara lu bu ci bëgg a ñëw danaa la ko yëgal rek waaye nag faw nga génn dëkk bi ndax dëkk bi boo demee ci tarjumaani faw sëy ni xarasaha llaahu la sëñ bi wax mooy yàlla aar na ko ba pare kon musiba du ko fekk nijaayam di sëñ Bousso bi itam ko am li jàbba te buñ tegee sëñ bi natt bi ci kanamam dana ko ñeewante te bu ñaanee suñ borom teggi ko tax liggéey bi bi nag li mu yoral boppam mooy bañ waree rek laa di génn dëkk bi dem Mbàkke Bari ca Jolof fukki fan ak juróom-ñaar yooyu ca diggi tabaski nijaayam wàcc ab liggéey mu jaar fi dem Mbàkke dem jaale ji ko ñu ba wàññi ko waat delluwaat Mbàkke bari ci Jolof ay weer yu néew la ca teg ndax tabaski tam xarit safar daal di teru ca fukki fan yi ak ñett eh, la daal di sóobu ca biir liggéey ba muy doon liggéey bu tar liggéey bu metti te yàgg ndax ñaar téeméeri natt ak juróom-ñett fukk ak juróom lañ ko teg mu dékk ko door dóor la ko diggantam ak boromam ngir am rek lañ doon sàkku ci suñ borom tabaaraka wa mooy ràmm waa jamono. fii ci biir kër gi am na fi barab bu ñu naan bayti lenn ci bagages yi Cheikh Ahmadou Bamba yi fii lañu ñu ko denc. néeg bi nga xamante ni ni néeg sëriñ bi li ëpp ci ay bagaasam fii la nekk néeg bi moo tudd bayti ñenn ñi nag dañuy wax ni baytul xalwa la ci des ni baytul maamoor la ko tudde am na ñuy wax ni baytul muxaddas waaye tuuru kër gi fi ñu tuuru néeg bi moo law ba ëmb kër gi kër gi lépp bayti lañ koy wax waaye kër gi la tudde daaru xuddoos mag ci daan ko wax kër yàlla ndax wéetaay wi quartier bi moo mujj nangu tuuru kër gi quartier bépp léegi daaru xuddoos lañ koy wooye loolu itam dafay wane rek barkeelu lu Sëñ Tuubaa ndax lu doon kër tey mujj quartier bi daanaka genn wàllu dëkk bi lépp boo ko doon seet xayma daal xuddos ci gën a yaatu ci quartier yi loolu lépp dafa wane rek barkeelug si bagages yi fi nekk itam di ay bagages yi boppam yoo xamante nii am na ci yoo xamante ne nii bi mu jógee ci géej gi nga xam ni ndakaaru la wàcc dem ndar muy bagages yu àndoon ak moom ñooy wër ba ak siwaat daarul mannaan yenn bagages yi foofu la newoon te yooyu bari na ci yoo xamante ne ni foofu la ko dencoon bi muy dem gànnaar da ko fa bàyyi dem gànnaar euh, bagage yooyu itam am na ci yoo xamante ne ni ginnaaw buñ ko tuumaalee ni day dajale ngànnaay ndax fi mu jaar tubaab bi daal jàpp ñi dana fayu te kër ga ñu doon jënd ay jumtukaayu ndar muy ay lal Cheikh Fall ak sëñ Mandumbe doon ko jëndi te am saay-saay su ca laxasu doon ko làmb ndax ñaw giñ ko ñaw ci ay saaku daj tànki la lay jàpp ni lii ay bunti fetal la ba tax buur siin taxaw ca taxawaay bu am solo boobee mu ca taxaw mooy seere sa as gor soo xamante ci ak njub rek nga ko xam donte sax bokku leen diine donte it la mu nekk ko ci waaye li nga xam ci moom te muy dëgg nga ñeme koo wax waaye gis nañ la ko suñu borom fayee te noo ngi ñaan suñu borom mu dolli ko fay te dolli fayee njabootam taxawaay bu am solo la ab leçon itam lañ ci joxe ci nit luy seere na seere dëgg te nu yàlla tax te bu ca loo dugg waaye na ko def rek ngir sàmm honneur ak dignité lu am solo la ginnaaw boo xamee ne sëñ bi dem na gànnaar daa am bagage yoo xam ne daarul mën naan la ko bàyyi ñu gànnaar ñu dem jolof bi muy dem jolof nag am ci bagage yoo xam da koo jox sëñ Mor Soxna Diop ni koy euh, demal Touba ci kër ga nga toog fa xaar nu ba àllarba moom itam fa tabaarakallaa ñu gëmee ndigal ak euh, ni ñu mën a sàmmee waxi sëñ bi àllarba jot mu jàpp ne àllarba ji la sëñ bi doon wax fukki at ak juróom toog nag fi di xaar sëñ bi ba ci àllarba guddik talaata guddik àllarba googu ñu ko fi indee talaata te guddi di guddik àllarba muy foofu mu tëdd moo tax sëñ Moussa jox ko barab bi ni ko yaa ko war a yor mooy jëkk ko yor barabu sëñ Moussa sëñ Tuubaa bi di ko saytu ndax xaar googee mu doon xaar sëñ bi ba àllarba rek ba àllarba jooju yi ñëw moo tax sëñ Moussa jox ko barab sëñ bi itam ginnaaw boo xamante ne ni dem na njaareem nag ba toog la wax ni bagage yi nga xamante ne ni moo nekkoon daarul mannaan nañ ko jël indi ko fii ci kërub daaru Xudoos wax sëñ am sa tulloo ak sëñ Masamba nañ ko yeesalaatal kër gi ñu ne am na jamono yoo xam Masamba def na fi ay néegi kaskare yu rafet xam daaru kaskare ko daan wax ndax rafetaay bi sëñ bi itam digal ko nag kenn ci bagage yi itam njaareem nañ ko roñ andi ko fii nga ne ni roñun wu ànd ak ko roñ ko fii kon loolu lépp dafa wane rek kër gi ni mu takkoo ak sëriñ ndax wax ni nit boo koy topp ba fekk fu mu summiku ay bagaasam ne fa boo fa toogee boo yàkkamtiwut yàlla da nga ko gis wala nga gis lu bokk ci moom moo tax bagaas yi mu yóbboon ci géej gi itam ci bari mi ngi fii benn benn jàpp ci digg ba bokk na ci demoon Gabon ndax bagaas yi moo ko daan rajal boppam fu mu fa jëm rek moo fay jëmee ay bagaasam dangay ci gis itam poti daa yim daan liggéey ndax bi muy dem gabon ne yat yattulo na ñetti junni xalima te bi muy ñëw yépp jëfandikoo na ko euh, ndax kéemtaan gi ko suñ borom defal moom ci bind la ko defal moo tax mu ne karamati xattu yeddi da nga ci gis itam kees yi nga xamante ni moom la liggéey nga xam ne ci la daan def daaji ak kër bi nga xamante ni daana ko Euh, di ci bind xasida di ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam couleur bu ne la daan nag day am couleur bu violet am couleur bu xonq am couleur bu verte benn bu ci nekk itam lam koy soxlawoo su àggee ci turu yonent bi da koy da koy bind mu ràññ ndax fonk gum fonk yonent bi daa wax ne zayantu nasmiya bi dikril muntaqa wa attaqi bihi kulla irtiqa bayti nekkee ci Daaru Xuddoos barabu ziyaar la barab bu fees dell ak ay njariñ moo tax taalibe yi daañu bàyyi ko fu ne ngir ñëw di ko ziyaar ak sàkku ci njariñ yooyu le kër la goo xamante ni nii këru barkeelu la kër la it goo xam ne këru cosaan la ginnaaw bi nag ki mag ki ay doomam di Cheikh Mouhamadul Moustapha jëkk koo wootu gannaawam moo sañ ci kër gi sëñ Moussa gentub sëñ Tuubaa la dëkk moom gentub sëñ Tuubaa la dëkk di dundal kër gi barab bi ci gannaaw itam néeg sëñ Tuubaa mag ñi daan ko wax naan ndiggante mu waxoon itam ni ñi ko toppoon ca Gabon joxoon ko boppam te du ñu doomu aadama ñenn ñi fii la leen dalal mooy bi yata'allaqu allazina aslamu min jinni asri duuna man lam yuslimu nga xam ni barab bi daal barab bu barkeel la seeblaan rek daan wax ni ñëw Tuubaa ba wàññi ko te duggoo ci biir kër gi nee na moog nga jubul nekk murid yi de ba wàññi ko ñooyam Sëñ Abdou Khadre daan wax ni jagle gi kër gi am kër Sëñ Tuubaa am nay jagle mooy foo ci dem ñu jéggal la waaye gii nag boo ne maa ngi koy siyaare ci moom suñu borom jéggal la ndax daa bokk ci cuntukaay yi Sëñ Tuubaa doon lëggee la boromam te Sëñ Tuubaa barab ba mu sañ ci moom am na resu ndax jaamu yàlla dong la fa xemem du la neen loo xamante ni ni jaaral na ko dem ci barab waaye fu mu xool suuf sa xeemeem ko ndax loolu da cee wane rek ci bi muy dem gànnaar nga xam ne su gisee beeñ bi foofu nga xamante ni ngelaw da koy bi set wecc day wàcc gëlëm gi julli fa ñaari rakka door a nga xamante ni naar bi bi ko Cheikh Sidiye boole loon mu di ko mujj naar bi daa mujj comprendre ko ba ci ay xur la koy jaarale ay xur yoo xamante ni day am ndox ak fii moom neex naa jaamu yàlla day yeesal gëlëm bi wàcc julli fa ñaari rakka door a nga xam ne nag lii moom buñ ko jàppoo moom kañ lay ak gànnaar nga xam ne day mujj di ko jaarale ci xur ak kii loolu da gis ni barab bi barab bu am réseau la benn buntu la ci buntu yërmaande yi nga xamante ni suñ borom ubbi na ko jaam yi ci kaw suuf te Sëñ Tuubaa yërmaande jaam ñi rek moo ko fi fii daal mën nañu moom màggal 18 safar moom mënu su ko tudd te tuddoon kërug Daaru Xudoos gi ndax fii la engagement bi jóge fii itam la euh, waaje dem Mbàkke Bari Jolof door a dem ci liggéey bu sori boobee boobee nag ba 1927 keroog bi ko sëñ Moussa di indiwaat fee mu tëdd moom jaarut Touba tànkam tegu te loolu fanweeri at la ak ñett moo woon natt bu rëy rëy boo xamante ne ab natt gënu ko diis waaye nag lam ci jëlee fa tabaarakallah alhamdulilah moo tax suñu borom defal ko ci loo xamante ni nii koo may ab jaam moo tax wax ni sëñ Touba mooy kiimaanu yàlla gi gën a rëy ci kaw suuf ndax xudratu ak irada day alali suñu borom waaye feeñ na ci jëmmi sëñ Touba noo xamante ni nii feeñut ci ndax woote bi yàggut waaye yaatu na te it fa tabaarakallah doy na kiimaan te li mu am bari na yonent yu fi jaar yoo xamante ni ni amuñu ko ndax alxuraan a ngi nettali ñu loo nooxan labisa fi xawmi alfu sannati illa xamsina aman yonent yàlla loot woote yàlla noo woote na junni at yu manqué juróom fukk te aw nitam ba mu ñàkkee tax ñoom suñu borom dañu ko yettal gaal gaal gu ñu yett leen dajale ñoom ñëpp comme mbooloo mu bëriwul sëñ Tuubaa bi mu wanee gannaaw ak léegi ci téeméeri at la te gis nañ woote bi eh, daj na mi ngi fépp fii ko unaadi kullal bilaadi lakin unaadi kullal ibaadi ñu ñaan suñu defal borom defal nu barke defal nu tawfiq ba li nu sëñ bi yéene yàlla nañ ci jot li mu yéene ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla nañ ci jot li mu bëgg ci moom yàlla nañ suñu borom jotale barakatu cheikh il xadim Cheikh Ahmadou Bamba bi mu génne Touba ci jamono yooyu ngir dem ci liggéey bi nga xam ne ci la soobu woon tegaatul tànkam ci dëkk bu bi nga xam ne moom moo di Touba ba keroog muy wujj boroomam ci guddik ñaar fukki fan ci muharram atu 1336 ginnaaw gàddaay gi dëppoo woon ak 1927. màggalu 18 safar mooy bésub cant boo xamante ni Serigne Touba moo ko woote ngir wax ni képp koo xamante ne ni sama mbég sa mbég la. bu bis bi ñëwee nag ma ci sant la yàlla ngir ni suñ borom defal na ko ci loo xamante ni ni cantuk boppam xeeb na ko ci